kon tabarakallahu sans plus tarder dañuy euh, avancer ndax guddi gaa ngi dem dañuy rekk présenté thème bi di waxtaanu cosaan wuuteeg ñaari cosaan yi muy cosaanu bi ñu am ñun ci Afrique ak cosaan nekkin wala dundin bi ñu fekk ci réew mi ñu gën koo tënk ci wàllu culture mu doon li nga xamante ne ñun moom la ñu jàngee ci réew mi indi ak li ñu fekk ci dëkk bi ñun naka lañ ciy dundee ak sunuy njaboot naka la ñuy dundee ci dëkk bi donc kan moo ñu koy présenté di maam Kani Diop doon koo xamante ne mu ngi jàng ci réew mi euh, di def PhDM ci Montclair University doon koo xamante ne kuy ambassadrice la kuy xeex la kuy gëstu la ci wàllu ñaari différence culture yooyu suñu doom yi bu ñu ñëwee fii yan possibilité la ñu mën a am pour gën a mën a intégré wu par rapport ak société bi te du yàq dara ci li nga xamante ne moom la ñu jëlee Afrique donc duma ci sori du ma ci xuus foofu laay yemandi may ko moom mu ñëw incha allah euh, présenter li nga xamante ne moom la gëstu bu ko defee ñu mën koo partager comme ay borom njaboot. di nuyu euh, autorités yi di nuyu chef religieux yi. di remercier Imam Sakho di le remercier ci occasion bi nga ma jox opportunité bi pour mu mën ñëw taxaw waxtaan ak nit ñi di nuyu itam sama mbokk jigéen ñi di rafetal teewaay bi parce que teewaay yu mel nii dañuy wax alhamdulillah alhamdulillah tey nekk na bés boo xam ne nag dañ ko jagleel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de sorte que yeneen waxtaan tey waru fi woon nekk mais comme occasion bu ñu ma jox la dinaa def benn waxtaan bu tuuti boo xam ne c'est simplement une introduction di ñaan yàlla may ñu ñu am yeneen jëtaay yoo xam ne dinañu mën a gën a toog wax ba trouver ay solution yoo xam ne dafay gën a avancer suñu communauté gën a suñu njaboot gi. bu ñuy wax nag affaire immigration ñun ñëpp ay immigré lañu. immigration nekk loo xam ne lu doy waar la. bu ñuy wax immigration wu nit ku ñuul ñaar lañ ci jël mu di une immigration forcée bi nga xam ne am na. amoon na pendant 400 ans nit ñi doon ñëw ci suñu dëkk yi di jël ci suñu ay pas di jël mais sàcc suñu ay nit sàcc suñu ay maam sàcc suñu ay ancêtre indi leen fii ci dëkk bi bi ñu demee ba nga xam ne arrêté nañu slavery mu di esclavage toog nañu lu yàgg yoo xam ne nit ku ñuul ñëwatul woon ci dëkk bi ba dans les années les années 70 et plus dans les années 80 ci la ñu commencé am ay vague ñu tuddee boobu une immigration volontaire parce que nit ñi ci seen bopp ñoom ñoo jëgal seen bopp pour ñëw seet si wala pour ñëw wut si ñi fi njëkkoon ñëw nag dañu ñëwoon pour jàng ñu amaat yeneen vague nga xam ne dañuy ñëw pour wut si ñenn di ñenn ñi di ñëw di wut si alal pour mun a dimbale seeni ay njaboot mun a dimbale nit ñi nekk en Afrique donc immigration nekk lu doy waax comme ni ma koy waxee parce que dafa nekk ay nit te bu ñu nee nit li mu ëmb dafa bare nit mun nañ ne dafa nekk benn carton bu fees mën naa joxe benn exemple comme ordinateur par exemple ordinateur pour mu dox dañ koy programmer am na luñ ci def soo ko branché mu dox ordinateur boo xam ne dañ ko programmer au Sénégal pour mu war fa dox boo ko fa branché dina dox mais boo ko yóbboo par exemple en France wala nga indi ko fii aux États-Unis déjà pour nga branché ko dafay am problème parce que fi ñu koy dugal outlet bi bokkul mu di mooy ñun problème bi ñu am ñun dañu dañu juddoo ci dëkk màggee ci dëkk am suñu ay valeur am suñu culture suñu ay waajur def si ñun yenn valeur comme par exemple bu ñu nee le respect des des aînés ñu ñëw ci dëkk boo xam ne xamuñu yooyu xamuñu yooyu valeur donc dafay am uniquement benn clash li ñuy wax toujours rek am na ay problème boo xam ne ñoom xëy na mënuñu comprendre mais ñun itam munuñu leen comprendre wala li ñu gëm ñoom ñun gëmuñu ko te ñoom itam li ñu gëm ñoom gëmuñu ko muy indi toujours ay problème di indi toujours ay tension bu ñu nee notion de famille fii par exemple bu ñuy wax la famille koo ne kuy sa famille dafa naan la sama yaay ak sama pàpp famille yaay pàpp ak ñaari doom mooy la famille idéale ñun en Afrique ñun au Sénégal tey jii soo ma laajee danga ma naan foo bokk ma wax la man ñii ñooy sama ay mbokk ñii ñooy sama yaay dinaa tudd sama ay maam dinaa tudd ñi ma xam donc ñun ñu am une famille boo xam ne that's the extended family nekku rekk yaay papa may ñëpp ci li bokk ba ci ay dëkkandoo mu di donc ay différence boo xam ne jafe na ñu mun a trouver bridge parce que dafa wute ñu jóge ci loolu ñun ñu xam luy solidarité tey jii même fii aux États-Unis su ma ñëwee ci kër mu tombeel heure añ wala heure reer dinañ ma invité dinañ ma a ñëwal ma bokk ci ma lekk tey jii bu ñu xamee suñu benn nit am na problème ñëpp dinañ ci jàpp ci biir communauté bi mu di loo xam ne amuñu ko fii waa fii xamuñu ko bu ñu jógee dugg ci domaine éducation nga xam ne éducation mooy li gën a am importance tey ci ñun parce que éducation mooy li nga xam ne dinañu permettre ëllëg ñu mën a am liggéey mën a tedd mën a jàppale képp ku ñu bëgg jàppale mais même éducation boobu nekk na problème ci biir dëkk bi parce que boo xoolee tey li ñuy jàngal suñu doom yi ndax méngoo na ak suñu culture ndax méngoo na ak suñu religion maa ngi fàttaliku bi may doog a egsi fii ci dëkk bi sama anglais dëgërul sama doom euh, war a dugg école am trois ans et demi ma yóbbu dugal ko may def su ma demee ci école bi su ma ñëwee ba ci bit buntu classe bi su ma nuyoo prof bi su ko neexee mu fay ma su ko neexee du ma fay mais terewul ma koy def mi la plupart du temps su ma koy nuyoo rek mu daal di sëgg ci journalam sama xol nag daal di ñaaw parce que dama naan ku may def nii dina def lu raw loolu sama doom ñu xëy bés mu daal di ma woo daal di ma ne ay fekk dama déposé sama doom ay une heure de temps plus tard mu daal di ma woo ni ma ñëwal nga jël ci sa doom ma ne ah lu xew ñëwal nga jël ci sa doom ma jaaxle daal di ñëw bi ma ñëwee mu ne ma sa doom dafa doon xëccoo ak beneen xale benn poupée mu jékki-jékki ne sama doom daal tufli ci poupée bi question bi ma doon laaj mooy ndax dafa nekk loo xam ne ñun dañ koy def ci suñu biir kër pour wane ne ñun fonk ñu bu baax yaakaar nañ nekk ne ñun xamuñu yaakaar nañ nekk ne ñun ay sauvage lañu moo tax ñun mën nañu tufli ci ay poupée xoolul nekk xale boo xam ne trois ans et demi la amoon xale boo xam ne dafa doon xëccoo benn poupée ak beneen xale bu tubaab